noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yalla mu doli ko xewal ak mujj moom ak njabotam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam dina tukki bokk yi bëgg a wéyal rek waxtaan wi ñu tàmbali woon ci dénkaan yu ñu jële ci alquranul karim dénkaan li ñu tàmbalee woon nag ci xutba bii nu mu ja def mooy su yàlla di digle ñu jaamu ko moom rek bañ ko bokkaaleeg lenn digle itam ñuy rafetal jëmi ci ñaari way jur yi ba jeexe ñaar yu njëkk yooyu te mooy wéetal yàlla kennal ko ak rafetal jëmi ci ñaari way jur yi waxtaane woon nanu leen ci xutba bi nu mujj def tey nag nu bëgg waxtaane li ci topp te mooy rafetal jëmi ci bokk yi ak jirim yi ak ñu ñàkk ñi ñetti xeet yi nag muy bokk yi ak jirim yi ak ñu ñàkk ñi yàlla digle na ci bërëb yu bari ñu jokk leen digle na itam ñu rafetal jëme ci ñoom ci alquranul karim ak ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee bokk yi yàlla digle na ci alquran ci béréb yu wuute ñu jokk leen jokk bokk gi digle na itam ñu rafetal jëme ci bokk bi bokk na ci fi yàlla di digle yooyu li yonente bi sallallahu wax ne nit bu saraxee ku ñàkk te bokkut ak moom am na yool waaye bu saraxee nag ku ñàkk te doon mbokkam day am ñaari yool yoolub sarxe bi ak yoolub jokk mbokk bi dem na ba sax safaan ba te mooy dog ko dog ak mbokk ñàkk a jokku mbokk ñàkk rafetal jëme ci mbokk yi yonente bi nee na kuy def loolu sax du tàbbi àjjana dafa wax ne kuy dag kuy dogu mbokk du tàbbi àjjana yal nañu teel a bu dee rafetal jëme ci jirim yi ak ñu ñàkk ñi moom doy na sëkk rek mu xam ne sabab la ci sabab yi tax a dugg àjjana rafetal jëme ci jirim yi ak bokk ak ñi ñàkk ñi aajowoo ndimbal rafetal jëme ci ñoom sababu dugg àjjana la safaan bi te mooy xañ ñooñu xañ leen seen àq man leen a dimbale te dimbale leen loolu sababu dugg sawara la yonent yalla musul yonent bi salaa sallam mo wax ne man ak ki taxawu jirim diko taxawu diko topoto man ak mom ci aljana ni la nuy mel ni ni la ko defee ci ñaari ñaari waaraamam yi la ne ni la nuy mel man ak ki taxawu jirim diko topoto ni la nuy mel ci aljana yalla wax ci alquran ci safaan bi ki nga xam ne kon safaan ba la def muy kii lekk alali jirim yàlla dafa wax ne ku koy lekk nga xam ne sawara lay lekk sawara lay dugal ci biiram te bu ëllëgee itam day tàbbi sawar kan yàlla musal yàlla wax ci alquran boole ci ñaar ñépp ki nga xam ne du taxawu jirim du taxaw itam ku ñàkk muy wax moom ne kooku dafa weddi dafa gëmut wala boog dafa gëmut bis euh, penc ne danañ fay nit ñi liñ doon def mu wax ne mooy ki nga xam ne bu jiriñ ñëwee ci moom da koy jañ da koy jañ mooy du ko du ko yaatal te du jox ku ñàkk du xiirtal nit ñi itam ñuy jox ku ñàkk yàlla ne kooku ku weddi la benn ñu ne daa weddi diine wala daa di fay gi nga xam ne yàlla da koy fay nit ñi ëllëg seen jëf yàlla nett na ci alxuraan itam waxtaan wuy dox diggante waa àjjana waa sawara bokk na ci waa àjjana dañuy laaj ña nekk sawara waa yéen lu leen indi fii lu waral ngeen dugg fii ñu ne ko ah noonu kat daawun julli dan daawut julli te it daawun dimbale ñu ñak kon ñak dimbale ñu ñak sababu tabbi sawara la yalla taala musal ni ñak ni ñak julli nek sababu tabbi sawara yang taala musal no nga ñaan yalla mu defal ñu yiw àddina ko alakhirah samal sunu ngëm musal ñu ci sawara bu ni buntu yiw yi soob ñu ci ak mo tere sunuy mebet fanu gudd ak ak mujj gu rafet alhamdulilah